wax ko président Abdoulaye Sylla mu saafara loolu fii ci Touba Wadane ci koñu bàq ya mbedd bi daal ko fi jaarati sa sedd na guyu waaye Cheikh Samba waa kon bépp ànd nañu di la jaajëfal. macha allah waaye nag nee nañu santal ma mi nga xam ne lépp moo ko waral. jërëjëf sëñ bi asalaamaaleykum. Cheikh bi ne asalaamaaleykum. nee ñoo ngi nuyu. adduna bi yëpp ñoo ngi leen nuyu. képp koo xam ni. yaa ngi Sénégal. yaa ngi Sénégal te yaa ngoog di arrière. wala fas sëkk mbedd mi macha allah ba lépp mën fay jaar. mais ku ne xam na ne weer wii ne. di màggalu Touba jullit yëpp la seen xel a ngi Touba. a ngi Touba. te bu ñu waxee Touba nag. ni màggal gi bokk na bokk na. ci yoon yi ci yoon yi. kon ñoo ngi nuyu ñëpp. kon ñoo ngi nuyu ñëpp. di ñaanal. di Muntaxa. mu yàgg fi lool te wér. di ñaan sunu bunt ci kër sëñ Baara ci kër sëñ Baara mu Cheikh Moustapha mu yàgg fi lool te waaye di ñaanal borom penc mii ne di penc sëñ Jiiri waa daan sugu ne sëñ Maxtaar nekk xalifa bi ne ñoo koy ñaanal aw fanam gudd lool di ñaanal sëñ Cheikh Sugu mi fi ne ci penc mi ne ci suba ba léegi moo ànd ak ñun teew fii di ànd ñun ci liggéey baa ngi ko yaa ngi sëkk bàqiya waaye waadaan karte dañuy wax waadaan waaye tey jii ku fi ñëw sa yaram daw na sa xol sedd na ndax jàmbaar jii nu jàkkaarloo muy Cheikh Samba Aya moom Cheikh Sidi Maxtaar jëf la xam waaye mu woo taalib sëñ Tuubaa bi kooku mooy kan président Abdoulaye Sylla Abdoulaye Sylla ni ko damaa bëgg mbedd mi nga xam ne moo sës ci armée bi nekk comme waadaan jolof jolof ma bëgg nga a ko waaye tegu ci baat tey jii oto yi mag ñëw na oto suuf si ñëw na mbett mi ñu ko bëggee woon amee nañ solo dem nañ njëkk waaye lépp Ablaye Sylla la waaye mu daal di Cheikh Samba yàlla na la yàlla boole moom ndax yow loo am ci gox bii Ablaye Sylla la yàlla sëñ Tuubaa la li mu defal sëñ Fallu barabu sëñ Fallu Ablaye Sylla moo ko yeesalaat Cheikh Sidi Muxtaar jëloon na ko gis nga li mu def ca ba moom lu mu am Touba la koy andi. tey président Ablaye Sylla sa morom yombul de. kooku Ablaye Sylla kon nag lu bëgg ci yéen yàlla ko yàlla defal. amiin Cheikh Samba daal tey jii xolam sedd na guy ndax mbedd mii mbedd tam yàgg na ci xam nañ jàmbaar jooju rek moo mën a saafara lii. macha allah ndax jolof jolof yi fi la jaar xam ni ñu bari fi la ñu ndeysaan nag bu si Assane Xaya. Mhm. allah président Abdoulaye Sylla. taxawaay taxawaay bu rafet bii. allah defal allah kon nag wax am nañ ci mbégte. tey Xaya dara nga oto yaa ngoog de président Abdoulaye Sylla amate nga ndam fii awoon ci ak a mës a jafe. waaye bis na kat dakk na. dëgg la de. taxaw sëñ si ak sëñ si di mu tax macha allah macha allah dëgg la de macha allah. mat na mat na yokk na fi ñun dernier Cheikh Cheikh Seydil Mokhtar yoonu mag wi nga xamante ni lépp daan jaar macha allah. di mbokki taalibe yi tey nag ñoo ngi fii. koñ bu naan daan di ginnaaw Sine Galaas nekk fi ci ginnaaw armée li baaxee fii nag kenn ku ne gis na ni mbedd mi mel yéen a ngi gis ak seen bët waaye président Abdoulaye Sylla liggéey ci liggéey bu rafet ki nga xamante ni barabu sëriñ Fallou Mbacke bee gis nga nim ko liggéeyee barabu Cheikh Seydil Mokhtar bi noonu. waaye lépp luy jëmale dëkk bi kanam rek ci lay dox président Abdoulaye Sylla ñoo ngi koy ñaanal saa borom guddal fanam réew mee ko ñor waaye Touba ko ñor defaral sëriñ Touba liggéeyal ko moo ko tax a jóg macha allah Cheikh Samba Xeye dernier Cheikh yëpp kontaan ci yow moom la jiital ci liggéey bii fii ci ginnaaw armée bi allah. Cheikh Samba Xaye amati nga ndam de dernier Cheikh Sidil Mokhtar président lay Sall la kontaan ci moom ñu koy ñaanal. Cheikh Samba Cheikh Samba Xaye dernier Cheikh jàmbar waaw président Abdoulaye Sall daal bi mu yégee lii tubaarikàlla macha allah liggéey bépp ci sa loxo la ko jaar bi waaye nga matale ko sëkk def ci li nga war a def lépp. waaye lii mu def tax na man Ablaye ne tax na man Ablaye lépp lu mu ne lépp lu Ablaye ne président Ablaye Sylla nga ca ndax sëñ Touba la defal ndax sëñ Touba la defal sëñ Touba laa bëgg kat sa sëñ Touba laa bëgg laay murid la te laay murid la buntub sëñ Touba la buntub sëñ Touba la sëñ Ablaye sëñ Ablaye fu mu def loxoom Cheikh Samba na dem na président Ablaye Sylla waaw waaw Samba xëy na engagé wu na entraînement ngir sëñ Touba li mu ma defal kii ki engagé wu ki engagé wu mooy Sénégal de Cheikh Samba xëy dernier Cheikh engagé wu na ci président Ablaye Sylla ngir liggéey bu rafet bi yoon wi nga xamante ni oto yi fi ni bëgg fi leen daan jaar tubaarkàlla macha allah yoon wi nag ne yoon woo xamante ne yoon wu naqaree awoon la waaye président Ablaye Sylla tubaarkàlla bi bi mu jotee kàddu yi gis ni yoon wi mel Cheikh Samba Xeye jotali ko liggéey bi wan ko liggéey bi taxaw na ci taxawaay boo xamante ni tubaarkàlla fi mu toll nii fii moom noppee naa taawati ci àdduna yoon wi jëng na ba ilaa yoo mi président Abdoulaye Sylla kontaan na ci yow macha allah. ne président Ablaye Sylla lay njëkk a sant. Mouride Sadikh. ne Ablaye Sylla Mouride Sadikh la. ndax Ablaye sëñ sëñ Ablaye Sylla. ndax sëñ i Sylla. bi lii. bi muy jëf lii. du tey de. Eh, ne du tey. màggal gu ne. màggal gu ne. jël am. président Ablaye Sylla jël na équipe ak i matériel am. ak i matériel am. ak lu mu am. ak lu mu am. ni Touba rek. ni macha allah lu sëñ Touba bëgg daal. ngeen jël suuf bi def na ko ne def na ko nag at. ay waaye ku ne na ni waaye ku muy daal muy daal muy daal muy daal ci sëñ Tuubaa rek ci sëñ Tuubaa rek Ablaye nag Ablaye Sylla nag naxul sëñ Tuubaa nee naxul fu mu nekk fu mu nekk taalibeb sëñ Tuubaa la taalibeb sëñ Tuubaa la ku ku dem ci sëñ Fallou mii ne ku ci feeñ di doon sëñ ne ku ci feeñ dootoo nabbu mu liggéey xabru sëñ Fallou na mën a mel na war a mu def ko Cheikh Sidi Mokhtar nee mu def ko Cheikh Sidi Mokhtar kooku luñ koy wax nee moo ñaanal boppam mais Ablaye Sylla daal moo ñaanal boppam macha allah mais waaye lépp waajuram wala waajuram wala muy docteur Sylla muy sunu baay docteur Sylla kooku bi mu ànd ak Serigne Saliou bi mu ànd ak Serigne Saliou da daan toog ba mu yàgg da daan toog ba mu yàgg Serigne Saliou woolu ko Serigne Saliou woolu ko boppam fekk ma xel ko ni ko fekk ma xel koom séq ak moom yoo xam séq ak moom yoo xam ni moom rek ak yàlla moom rek ak yàlla kon sëñ Ablaye Sylla kon sëñ Ablaye Sylla lu mu am lu mu am waajuram moo ko liggéeyoon waajuram moo ko liggéeyoon sëñ Sylla kat mais te sëñ Sylla tekkeegul tekkeegul laxasaayam tekkeegul laxasaayam lu baax ci dëkk bi lu baax ci dëkk bi ànd na maag moom entraînement ak moom ay kilomètre càll bi ay kilomètre càll mu bënn ay mu bënn ay rabina joxe ko addiye joxe ko addiye kooku kooku liggéeykat sëñ Tuubaa sëñ Ablaye nag Ablaye Sylla nag yoon yoon wii ngay gis nii jëm nii sunu ginnaaw jëm nii sunu gannaaw. ku ne xam na màggal gi ne xam na ne màggal gi. ak lu dul màggal gi ak lu dul màggal gi. oto yi nii la ñuy def. oto yi nii la ñuy def. ngir yoon bu baax. ngir yoon bu baax. ci jamono yooya. ci jamono yooya. yoon yi nag bi mu yàqoon nii. yoon wi bi mu yàqoo. bari na bari na. ñu jëm ci bàq yi ñu jëm ci bàq yi. yabub néew. yabub néew. ñëw ba ci ndox mi. ba ñëw ba ci ndox mi. ngiroo fi ngiroo fi. am fiy jafe-jafe am fiy jafe-jafe. kon sëñ lii mu nu fa kon sëñ si la lii mu def. oto yaa ngoog de macha allah jal suuf yaa ngoog. ko sëñ Touba. defal ko sëñ ku ne xam na ne ku ne xam na ne yëngu yëngu-yëngu ku yëngu-yëngu fii rek ngay mujj xam ne fii rek ngay mujj léeg-léeg ñu yenu nit nag léeg-léeg ñu yenu nit nag mu ñëw fii mu ñëw fii guddi guddi kenn du xam yoon wi kenn du xam yoon wi dugg ci ndox mi dugg ci ndox mi foncé fi foncé fi xam ne dañuy teggi kees xam ne dañuy teggi kees yóbbu yóbbu doog di lijjanti doog di lijjanti néew bi doog di lijjanti oto bi nu mu génn doog di lijjanti oto bi nu mu génn Ablaye bu ko saafara sëñ Ablaye bu ko saafara liggéeyal na yàlla liggéeyal na yàlla ñoo ngi koy sant ne ñoo ngi koy sant di ko ñaanal di ko ñaanal màggal gu mas a màggal màggal gu mas a màggal gii mu mujj gii mu def tey gii mu def tey yàlla na dàq ci màggalam yàlla na dàq ci màggalam yëpp yàlla na digg yëkkati ko yëkkatee Serigne Abdoulaye Sylla président Abdoulaye Sylla dafa rakam nag. bu ma waxee Maxu Sylla. bu ma waxee Maxu Sylla. wax Saliwu Sylla. wax Saliwu Sylla. taxaw nañ fi ñu war a taxaw. Maxu démb. Maxu démb te yaa ngi ci biir ndox mi fas yéene yoon wi jag rek macha allah. nee Maxu fii la nga fekk muy wër fii. muy war fii dama sëñ Samba ni ma sëñ Samba fii daal fii daal ni ma ko gisee ni ma ko gisee dañuy arrêté lu bari dañuy arrêté lu bari indi équipe bi andi équipe bi lu defar lii lu defar lii kon Ablaye Ablaye Sylla bàyyi na rakk bàyyi na rakk yoo xam mën nañ taxawaay mat nañ taxawaay Ablaye Sylla sëñ Ablaye Sylla sëñ Saliou sëñ Saliou Sylla Ndakaaru la ma wooye ne Saliou Sylla Ndakaaru la ma wooye ni ma sama sama sama mag ni ma sama mag sama kilifa sama kilifa sama sëriñ sama sëriñ wax nan ma li xew wax nan ma li xew waaye man day waaye man day maa ngi wax ne maa ngi wax ne bu subaa bu subaa man bëggoon na maa dem man bëggoon na maa dem waaye damay toog xaar waaye damay toog xaar foofa jaamu yàlla la jaamu yàlla la macha allah gis naa nam mel kon nag kooku kon nag kooku Ablaye bu fi newul bu fi Ablaye fi rakkam teg fi ay rakkam waaye Ablaye daal na xam waaye Ablaye na xam ni rakk yi mu am rakk yi mu am ñu ngi góorgóorlu ñu ngi lu sëñ Touba soxla te lu sëñ Touba soxla ak sëtam yi ak sëtam yi na nga ca na nga ca te gis naa lu bëri nag te gis naa lu bëri sëñ Cheikh Mbacke mi toog sëñ Cheikh Mbacke mi toog gis naa nga ànd ak ñoom gis président Ablaye Sylla président Ablaye Sylla ab taalibe la ab taalibe la doomu dëkk bi la doomu dëkk bi la ku bëgg dëkk bi la ku bëgg dëkk bi la nanu ko ñaanal nanu ko ñaanal Ablaye nag ñaanal ko Ablaye ñaanal ko mooy ñaanal mooy ñaanal Touba ndax moom lu ma ndax lu ma am Touba ko yéene Touba rek la ko yéene ma nga bitim réew kat ma nga lu ma am waaye lu ma am rek Touba rek dëgg la de Murid Saadix la nanu ko ñaanal nanu ko ñaanal ba xam mm. am na yéene ci réew mi mm. léegi yow dan yéene nga am pour ànd ak moom ci 2024 waaw jërëjëf Serigne Cheikh dama ne sëriñ Ablaye la sëriñ bi waxoon ne li ma yéene président sëriñ bi laa ko ñaanal waaye man sañ naa ne man Cheikh Samba Xeye ah. Abdoulaye Sylla boo mu liggéeyee barabu sëriñ Fallou bi génn te tudd woon bëgg dara teg ko ci Cheikh Sidi Moukhtar mi xam ne dana sama nopp bii aajo ju ma ju ci waaye wax ma dégg ko aajo faju man na tey bi ma xëy dem naa barabu Cheikh Sidi Moukhtar la ma njëkk a mooy sëriñ Abdoulaye Sylla mii liggéeyal sëñ Sidi Muxtaar ba ñun taalibe sëñ Sidi Muxtaar yi bu ñu duggee suñu xel dem ne lii ñoo ko war a def na ko ko fa te sëñ Baara kat nee na aaju jàngoro jóge am na saafara te day kat moo tax sëñ Abdoulaye moo ma jaaxal de man ànd moom yéen kon ñoo ko déggandoo la ilaha wu na de ànd Allah baax a baax ci président Abdoulaye Sylla ndax taxawaayam ci réew mi ñëpp a ko xam rawatina nag Touba ndax moom murid saadix la baayam yàgg naa def lu baax ci Touba ak li ko war ak réew mi waaye mu ñëw nag moom itam yokk loolu fépp waaye rawatina nag biir Touba yàlla boole ko nag Cheikh Samba Xeer ku mu jàpp Cheikh Sidi Mokhtar a tax mu jëfal Cheikh Sidi Mokhtar lu ne lu baax moom Abdoulaye Sylla Cheikh bi xam loolu kon nag nun leen rek lañ koy lancé seex bii mu seex Samba dëkk bi da cee bokk. fépp fu mu jëm nag. noonu fa la ñu jëm ànd ak moom rawatina gox bii. macha allah ndax mbedd mi amoon nañ ci jaaxle lool. wallaahi dëgg waaye bi ko seex bi waxee. ah, ah Abdoulaye Sylla taxaw na bu rafet. macha allah oto yaa ngi mang. oto yaa ngi ngóob de yaa ngi nii mbedd mi. fu neex waay jaar. macha allah amoon nañ jaaxle. eh Abdoulaye saafara na loolu. macha allah waaw gox bépp kontaan nañu. macha allah. tey Cheikh Samba Xaye. dañuy xamal moom ñu président Abdoulaye Sylla macha allah. kon dégg nga ni ko waxee mais dem amoon naa dikk waaye nag tey jii sëñ Abdoulaye Sylla président Abdoulaye Sylla saafara na loolu seex bi nag ne ñun. bu nu ko lëkk ñu lëkkal la ko rek. dëgg la de seex ñun fa lañ dem mu Cheikh Samba mii. dara ñu Cheikh kon nag ñoo ngi leen di siyaar tey nag ñoo ngi fii ci usine fii ci ginnaaw armée li bàq ya ko ñu Cheikh Samba xëye dara ñu Cheikh Sidil Mokhtar waaye liggéey bu rafet bi ngeen gis kenn ku ne xam na ne fi mu toll fees na dell ak ndox waaye bu ngeen gisee. quatre francs yi ak oto yi nga xamante ni ñooy màng ndox mi ak jalu suuf yii ak oto bee nga xamante ni tubarkàlla bu paree moo koy marché dër ko nga xamante ne jàmbaar ji wanati na mane nam jàmbaar jan muy laay Abdoulaye Sylla Abdoulaye Sylla mi nga xamante ni mooy Macky Sall Sylla ni mu taaralee barabu Serigne Fallou taaralee ko barabu Cheikh Seydil Moukhtar yemu ci dañu bépp liggéey boo xamante ni dañ koy def Touba rek dama koy ànd ak waa kër Serigne Touba màggalu Serigne mënu ko waaye liggéey bi nag mu jël lépp dénk ko ki nga xamante ni mooy Cheikh Samba Xaye dernier Cheikh Cheikh Sidil Muxtaar Cheikh Samba nag koñ bi mu dëkk di Usine Glace ñëpp kontaan ci moom di ko yónnee cant ak ngërëm ci Ablaye Sylla Ablaye Sylla daal taalibi Serigne Touba la nit bu baax la koo xamante ni nee naa ko nit ñi dañuy wax yow ngay jëf jëf ju jii nag bu ko taalibe jëfee ci yoonu murid bii dañ ko war a sant gërëm lii am na solo bu ñëpp defoon nii billaahi wal kitaabi ndox mi jógee fii tay tay tay tay waaye fii ci usine glace ko ñu sax Samba Xeye moom noppeeti naa am ndox noppeeti naa taa macha allah jal suuf yaa ngi nii jal suuf yaa ngi nii oto yaa ngi nii gaare ñoo ngi nii di màng ndox mi léegi fii ko ñu Cheikh Samba Xeye dernier Cheikh Cheikh Sidil gaa yaa ngi noonu ci biir ndox mi jërëjëf ñoo ngi nii usine glace